la lay wax ne ñun amuñu état gis nga dama am sama ñaari xarit damaa toogoon ak benn xaritu américain koo xam ne Amérique la juddoo. waaw 87 la judd. mës ta ñëw Sénégal. Mm-hmm. am koo xam ne Sénégal la juddoo moom itam presque 85 87 la judd mës ta génn Sénégal. ma toog ak kii di waxtaan ak moom moom yàgg ma ne ko kaay ma ñaanal la far kee ñëw kooku moom dafa mën a jàng xasaayit lool ma ne ko ñaanalal ma ko. Mm-hmm. bi mu tàllalee di ñaanal sama xel na ma kii lu nga ko war a ñaanal sax ma ne ko yow américain. Mm-hmm. Euh, yow ku la doon boo gisoon yàlla loo koy laaj mu ne ma am faa toog lu ma deux minutes xamut lu mu war a wax. Mm-hmm. mu njëkk di ne ma ah, xanaa ma ñaan ko paradise. Mm-hmm. ma ne ko waaw ma ne sénégalais yow yow boo gisoon yàlla yow loo koy ñaan mu ne ma yë xaalis bari. Mm-hmm. kër gu rafet. njaboot gu bari gudd fan. waaw ma ne ko gudd fan ak wér-gi-yaram ma ne ko léegi américain yow lan moo tax laajoo yàlla kii li mu koy laaj mu ne ma c'est parce que li mu lii mu wax yëpp man état moo ma koy amal état dina ma jox lu ma lekk état maanaam daal américain lu mu war a laaj yàlla rek bu xoolee day xam ne ndeke état mënal na ko koo defal ndeke ñun ñi ñi judduwul ci état ñun ñoo sonal yàlla ñun ñoo yéeg ba ca kaw poñe yàlla ne ko yaa ma wàccee woon ca suuf mu ne ko wax mu ne ko suuf sax ma wàccee nag dama caa bëgg ay pepp yu ma dëkkee xanaa yàlla moom bu la wàccee ci suuf si kay wàccoon ak yow ba pare ne la yaay xalifa ci kaw suuf xalifa day am su kër am lu mu lekk am lu mu naan mm. mais boo nekkee ci kaw suuf si di xoole ba boo bëggee oto da ngay yéegaat ba asamaan poñe yàlla ne ko oto may dawee ca suuf laa bëgg mm-hmm. ñun ñoo sonal yàlla ndeke mm-hmm. ma ne ko yow lan moo tax ma ne ko fi ne nii oto bi ngay wax boo amoon état doo ko doo ko ñaan yàlla kër boo amoon état doo ko ñaan yàlla mm-hmm. wér gi yaram da ngaa ne amoo loo fajoo te amoo ku la faj nga xam ne boo wopp yi dee nga tax nga ne yàlla may ma wér gi yaram waaye fi ne boo amoon hôpital yu baax jërul ñaan mana ko mané ak njabot nak japon na né and nañ ci mané yow américain ñaar doom nga mu ma ñaari doom yu jigen mané bëggo doom ju goor ma dedet mo amna ay doom grawul amna ñaari doom mhm. mané ki ki ki ñaan doom yi de mané ñaata nga mana né ma juroom mhm. mu ma ñett ñu góor ak ñaar ñu jigen waaw ñaata nga bëggaat mana ma ñeneen ñett ñu góor ak ñeneen ñaar ñu jigen waaw est ce xam nga yow la motax ngay ñaan doom yu ma ba fini ni da nga bëgg jur doom manam juraale ci jam manam dom, égal plus mbam dal mam jam. Dom, plus waaw parce que xam nga ne. dund bi ngay dund fi waaw lo am doole jee la ko may. ta doole ci saxut day jeex. Mhm. bu jeexee ta fekk am do ay dom rek nga yor. waaw man nga am problème Lo da nga ragala yam ci am ay dom. Mhm. nga bëgg jam bu indi waré dara loy dunde lolo tax nga bëgg dom da ci pilis bu góor mhm. mais dom ju góor ak ju jigen lepp Dom la mais bëgg bëgg jappalé jam ci bir lolo ko waral te lepp ñak ko état koy indi deng nga mané ko gis nga bu ngeen gisee nag nit ñi di xeex naan ay Ousmane Sonko ay ay ay ay ay ay ay ay justice nangam nangam ñi naan ay dangeen a dof nga mën a gis nit ku am kër. am oto cinquante million ñu ne ñu ne mars mu gaaree otoom. dem taxaw takkaayu di xeex. c'est parce que xam na ne. bu amul état amul dara. maanaam xam na lii américains yi nekk lañ xam. yéen ñi nga xam ne nag da ngeen xamul li xew da nga naan yow am nga oto kër looy xeex. fekk nit ni yàlla bindee àdduna bi nit mënta avancer. lu dul ci biir état tey Sa Ndiogou boo yoroon cent milliards. Mhm. mën ngaa jënd oto dix milliards mais mënoo defar tali booy jaar. bu tali bu état bi defarul tali amoo tali. Mhm. am na nu muy demee ay feebar yëpp da nga koy doo da nga ciy am problème te am nga xaalis. Mhm. nit mënut a xeex ba génn ci état rek moo ci mën a génnee nit. ma ne ko yow. est-ce que xam nga la moo tax kii juddu. kii juddu rek daa di fiy fekk ab état daa daa di fekk ne àjjanaam addunaam lépp àjjana la. mu ne ma déedéet ma ne ko kii dafa am ay maam ay ñoom Malcolm X. ay ñoom ay ñoom John Kennedy ay maamam yoo xam ne maanaam jaayuñ géej ga jaayuñ suuf si dañ koo jël liggéey maanaam dee pour lii am pour ay sët yoo xam ne ci àjjana la ñuy dund mm. man naka yow xam nga sawara we nga nekk loolu ko def mun naa mën ne ah, ko sa maam yu dund àjjana maanaam li jigéen di bi ñu yabee jigéen yuy sëyi rek la ñuy wax mooy dañ naan la booy sëy boo demee boo fa dundee nooflaay da nga fa jurub jaam boo fa nekkeeb jaam da nga jur ko danga fa jur buur waaye képp koo xam ne say say maam ci état waaw ay jaam lañ. Mm-hmm. bu ëllëgee ay ay ay buur la ñuy jur buuri àdduna képp koo xam ne say maam ci état ay buur lañ jàppee woon seen bopp ñoom seen nooflaay googu mooy indi mooy tax ay jaam la ñuy la ñuy ay sëti jaam la ñuy am loolu moo indi tey Amérique mel noonu soo gisee nag ay muudu muudu yii nga xam ne dem nañ tukki am nañ këyit am nañ liggéey am nañ oto seen dund ñoŋ na ñu mën a gestuwaat di xuloo nit ñi ba leen bëgg a rey parce que dañoo da ngeen war a xeex taxawal lii mm-hmm. c'est parce que xam nañ ne àdduna ku am état am nga àjjana ko amul état amoo dara te noo koy xamee mhm. gis nga sandiogu bala maa dee nag fii ñu naan la léegi nag nit ñi li ñuy xeex du ay Ousmane Sonko du ay Macky Sall mhm. du ay yooyu xam nga lu ñuy xeex mooy pour ñu xeex am état bala maa dee nag ñu jàkkaarloog ni naan ko voilà lii boo ci dee waaw boo ci dee da ngay perte boo dee da ngay perte sandiogu ma ne dama lay laaj kan nga mas a gis mu dee te pertut ku dee te pertut nit koo gis muy dee gis nga boo jëloon caaye ji sol ko jël mille francs def ci gis nga boo daanoo dee. waaw ji nga deewaale nga njëkk a perte bala nga perte leneen. dañuy dañuy tekki caaye ji jox sa moroomu góor <coughs> lamb 1000 francs yi ci nekkoon jox keneen ndegam caaye ji nga deewaale ngay perte sekkaat caaye ja ca armoire ba. dégg nga <laughs> léegi nag. léegi nag gis nga saa ma may ma benn benn kii rek <laughs> mooy gis nga jëlal jëlal <laughs> benn paa bu dund quatre-vingts ans ca Amérique mm-hmm. di dee mm-hmm. nga jël benn paa bu am quatre-vingts ans dunde ko Sénégal di dee nga teg leen ñoom ñaar américain bi. Mm-hmm. kenn ku ne war a génn àdduna tey ci journée bi. Mm-hmm. américain bi. Mm-hmm. bu xoolee doomam ne ah waa fu muy jànge ne état dina ko jàngal. sama alal ji ma ko bàyyee baa duñ ko lekk ne loo état du ko seetaan. kan moo koy jox sécurité pour mu dund état dina ko ko jox bu xiifee état dina ko def. moom day xool àdduna xam ne lépp réglé na ko. bu jàkkaarloog yàlla moom paradise rek la koy wax ajana. jëlal na ki dund quatre-vingts ans Sénégal. moom day xool doom ji ne man kii maa daan dang dang pour mu lekk. waaw bu ma dee ku koy yor. xamu ko. sama kër gi ma ko bayé ba sama sama rak yi duñ duñ nax sama doomi nak amaguñ xel. Mm-hmm. jaay kër gi lek ko. amul état buy téré lolu am. Mm-hmm. wa man sama sama sama sama compte banque bi ba bu gaay xamé xamee ni ci nek duñ ko seddo bayyi samay doom. Mm-hmm. du xam kan mo koy jox sécurité du ko xam. gis nga paa boobu ba malaaka mi yek ci mom da koy fekk muy joy ah, wa parce que parce que parce que dee ni nii. ni mais telut telut dee ma ngay tal mom problème yim doon réglé ci aduna ah. xam nga luy dé perte xam nga luy dé perte moy ngay dundu nit ñi ne dañuy xeex pour état dañuy xeex pour démocratie nga ne man damay xeex pour lu ma dundee oh. ngay xeex di xeex di xeex ba dee te li ñu lay dajale dañ koy lijjanti ci mooy yow da ngaa dund ba ah, dee réglé woo dara voilà da ngaa dee perte loolu mooy perte mooy nga dund di réglé benn problème ba dee yow ñu réglé sa problème yow ah. am na ñoo xam ne balaa dañ doon ñoom duñu xeexal kenn naan lu ma dunde laay wër te yow boo dee balaa ñu laa dajal dañ koy lijjanti ji parce que sa dund gi daa naax saay loolu hmm. mooy affaire bi mooy il faut ñu xam ne waaw père de la nation maanaam baayu nation ñu ngi ko tabaxee ci baay ak doom manaam état. chef d'état ñu ngi ko tabaxee ci baay ak doom. xam nga ñetti cër moo am ci àdduna. bi bi bi cërub së jeex na jeex na li mëtul 30 secondes cërub sëriñ. waaw dañ koo ñëw fekk ñu ne buur ak baadoo la. waaw jaam ak sang. Mhm. baay ak doom. Mhm. ñu ne sëriñ kat mënta doon buur ak baadoo la. mënta doon jaam ak sang sëriñ ci boppam. Mhm. wala yonent ci boppam daan na jël naa baay ak doom. fii ne sëriñ bi mooy baayu nit ki. taalibe bi wala muslim bi kooku ba yonente bi sax wax na ne maay bàyyu xeet wi boo gisee nag dañoo xool Sa Ndiogou yow sa kër mhm. soo xëyee mhm. est-ce que yaakaar nañ benn yoon nga dem nga dem seeraas di jëndali sa say doom ndawal àgg xool ndawal ga gën a bon nga di ko jënd mhm. wala ngay jéem a waa kër gi war a jënd jënd 400 ñëw naa leen jëndee naa ko téeméer <laughs> xam nga loolu xalaatoo ko <laughs> yow boo demee nam mu gën a baaxe wala nga jënd ndawal ga ba noppi lakk ko ci seeraas ah. lekk xaaj bi doo koo andi maanaam booy jëndali say doom yow da ngay dañ lay wóolu mm. yow it nga ñeme li ngay def parce que yaay seen bàyyi gis nga nag ci bàyyi bàyyi buy jënd buy nduggi marché rek foofu lañ tëgge état mm. état mooy loo xam ne nit ki mooy bàyyi askan wi moom doomam lay war a gis waaye warut a gis ku ko contre ah. ak ku ko contre mm. boo gisee ngay wate wate bi doo ci bind sa tur fii ne doo ci bind saw sant doo wane ne yow la Marème fay ak Macky Sall mën nañoo ànd Marème bañ a wateel Macky te Macky du ko xam parce que dañoo bëgg bu faloo moom ñi ko fal ak ñi ko falut du leen xàmmee mu traité ñëpp ay doomam loolu bu ñu ko deful rek état bi maanaam état amut léegi nag léegi nag jamono bii nga xam ne Soudan américains yi ña ngay daw di jël seeni abion di wër seeni doom pour bañ ñu dee ci guerre bi mhm. ñun suñ armée mi ngi topp ab opposant di ko gaase mhm. moo tax ñun dañoo war a taxaw temm mhm. xamuma nu muy tudd nu muy sant mais ñu taxawal état de droits Sénégal pour bu ëllëgee suñ doom yi ñu fiy bàyyi ñu man fee fekk loo xam ne mooy suñ ñaqu maam mais ñaq wii ngay ñaq léegi lekk ko